li nga xam ne tey maanaam moom mooy feebar bi mooy bas bi. tey bu ñu waxee tey dakaar Thiès moo si topp situation bi xaw na critique lool ñun mouvement And Soppi Sénégal bi situation bi amee ba léegi moo presque juróomi weer bankuñu suñu loxo mi ngi jege askan bi ni ngi jege la population si domaine bu nekk nag si wàllu jàpp leen si wàllu alimentation bi si wàllu maski si wàllu gel si wàllu yëpp flyers yi si loolu ni ñu ko xamee situation bi dafa gën a doy waar dafa gën a critique am na ñenn nga xam ne sax dañoo jàgg dañuy wax ni seen bopp parce que amul mais ñàkk xam ñàkk ñàkk bañ a dal rek comme yàlla dafa def bas bi ni muy gën a sonal mooy xale yi ak mag yi boo xoolee cas communautaire yi bëri na mooy wàllante yi bu ñu xoolee tey bu ñu jógee suba chaque jour tey bu amee 10 gannaaw suba 17 et de buñu xol tamit Thiès tamit nek ci ben transit bu xamne tay kep ku joge région bu nek Thiès ngay def fi escale fi sogo sogo jall Dakar situation bu gën a doy war ñun mouvement ànd sogo senegal buñu démé ba jël engagement analyser la situation yakana bi afi limay faral di wax toujours état mënul def yépp il faut que acteurs politiques yi seen bop gëm seen bop ñi nga xamne manam fi dëkk ci gox di di wax ni que ñoom seen gens yoo xam ne dañ liggéey ngir askan bi ñoom aussi dañ si war dugal seen lox bu baax ñun ànd soxla Sénégal bu ñu demee ba def prise de conscience xool ne masques yi joxe nañu ay masques état aussi tamit taamuru def yëpp le président public il a beaucoup fait état a beaucoup fait distribuer ay masques à gauche à droite mais taxul ne yaa ngi gën a yokk ñun dañu désidé def def ba ay ce qu'on ay campagne de sensibilisation parce que Fatana en français c'est-à-dire qu'actuellement, actuellement comme on nawetaan amul Amoul, amul comme actuellement les vacances sont là on va maintenant prendre les étudiants du mouvement il ah, y a des jeunes du mouvement pour faire ce qu'on appelle des campagnes de sensibilisation Nous faisons dans chaque quartier par dans la exemple dans la zone nord dans la zone nord 19 quartiers là. quartier bu nous faisons pour fa samp le mot fanweeru jeune Ça c'est des volontaires du mouvement sur Sénégal dañuy sol seen ay casquette seen ay t yu xam ne pour lutter contre corona moo nekk nii di ngeen seen nii moom lañ defar sol ay casquette yor seen jet dugg di sensibiliser la population contre danger bu xam ne maanaam ni ngi koy négliger ma xam ne mu ngi si biir kër yi paj yi baa ngi ñëw nawet baa ngi ñëw il faut aussi tamit entre aussi ñun tamit on va même faire des distributions de de de moustiquaire dans les maisons parce que tey hôpitaux yi fees nañ dem na ba léegi-léegi boo fajoo sax dañ lay bindal garab nga toog sa kër di ko di ko di traité wu tey boo amul ay moyens nooy def donc nag bu jot na tey mu doon opposition mu doon allié ñëpp taxaw jàppoo seen loxo lan pour jàppale son Excellence le président Macky Sall mu ngi def lu mu mun pour au moins yàlla jëlee fi bas bi